asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara Muhammad yéene dellu si ak yéen ci yóbbalu bés bi boo bëggee ñu bañ laa tuumaal dangay sori buntu tuuma yi am na bunti mbon yoo xam ne ku fa dugg faw ñu tuumaal la am na bunti mbon yoo xam ne ku fa dugg la ñoo ngi ko toxalee nag ci téere buñ naan maj mawun nóoree nii sëriñ Touba wax ko fa jërëjëfe sëriñ Touba maam Cheikh Ibra